damay bëgg rek toujours li nga xam ne ñu ngi ci ñu dama ci laaj euh, parce que yombul mais ñu ngi ci bu baax a baax te am nañ ci yaakaar bu baax parce que boo gisee partenaire technique financier ñi ñu jàppale rek dañu encadré ñëw rek dafa am lu tax ndax programme yi ñu ngi fi fekk nañ fi programme Elan école et langue nationale bi nga xam ne organisation internationale de la francophonie moo ñu ko baaxe woon ñu mu nekkoon programme TES nar na passé à l'échelle maanaam ñu gën a laal yeneen région pour mu gën a dox ci dëkk bi am na ñu fekkoon nañ fi sax ay organisation société civile yoo xam ne ñoom nekkoon nañu fi di ko def mun naa ci tudd arrête mun naa ci tudd Émile mun naa ci tudd Atlas ay programme yoo xam dañ ko defoon pour wone ne nit bu commencé ak làkkam lay gën a yomb ci moom pour mu gaaw a dem ci français bi nga xam sax mooy suñu langue officielle loolu ay test yu ñu def la ba pare ci ay années moo tax ñu jël élan andi ko mais aussi depuis deux ans euh, américains yi dañ ñëw USAID véritablement di ñu jàppale ci domaine boobu ba nga xam ne am nañ programme bi ñu tuddee lecture pour tous ñoom ñoo ko yore di ci jàppale éducation nationale bu baax ba nga xam ne passé nañ à l'échelle école yi bëri na des milliers laay wax ñu ngi ko ubbi pour xale yi démarrer ak seen làkk mais xam ngeen ne yombul ndaxte il faut nga am cartographie bi ñuy wax linguistique maanaam nga xam tey boo ubbee école bi tey ci Jurbel ci Mbàkke ca benn quartier école boobu ca biir école ba ban bu ñuy dugal làkk ban làkk la ñuy wax foofu ci école bi ndax wolof lay doon wala séeréer wala lii loolu la ñuy wax cartographie linguistique nga xam ne école ba boo koy ubbi ji di nga xam ne langue ba ñu war dugal si école bi bii la ñun ñu ngi ci ba du premier au 5 bii di ñoo septembre d' ñu ngi def benn atelier boo xam ne daf ñuy permettre ñu jël rapport bi jébbal ko waa USAID jébbal ko ministre de l' éducation nationale pour mu xam nag ne tey foofu Saint-Louis lañ ko defagum ñu ngi koy def ci yeneen région yi nga xam ne ak lecture pour tous dinañ xam ne nag tey région bi par exemple Saint-Louis buñ fa duggee école bi bu ñu fa mun di dugal làkk bi dinañ xam ne làkk bi lañ fa war a dugal loolu moo tax yombul ndaxte président dafa ne làkk yëpp ñoo yem te ñaar fukk ak lañ ci am dafa bëri wante ñu ngi góor góorlu lépp loo xam ne ñu ngi ko mën waaye jé dañuy jéem ñëpp a ci war a dugal seen loxo parce que dafa sensible mais acte 3 de la décentralisation bi daf ñu dimbale ndaxte compétence transférée la ba nga xam ne IA yi ñu ngi ci liggéey liggéey bu mucc ci ayib si base bi pour mun a dem ci biir école yi ubbi fa classe d'alphabétisation yi pour ñuy préparer l'introduction des langues parce que ci formalisation sous secteur bi la ñu jëm loolu daal laa bëggoon wax am na sax lu ma fàtte ndax programme yi actuellement dañoo bëri Ousseynou kii El Hadj Omar mi nekk sama coordinateur xam na ci lu bëri parce que liggéey bu bëri moom moo ko yore suba ngoon dam léeg dama koy yërëm dama démb dama ko ba ñoo ma ne ko baal ma de jéggal ma ñu ngi lay remercier parce que liggéey bi moo bëri actuellement parce que régime bi fi nekk ki ko jiite nee naa la militant des langues la nekk koo xam dafa bëgg ñu éradiquer analphabétisme dafa taxawu nit ñi taxaw ministre bi ministre bi taxawuñu encore ñu nekk ci liggéey boo xam ne vraiment véritablement buñ ko toppee fileeg du yàgg defe naa ñëpp dinañ ci gis seen bopp xale yi ñu mun leen jàngal mun leen former pour ëllëg ñu mun a yore réew mi